xëtam bu njëkk jëm ci bokkam ci élection présidentielle yi yër leen yëglekaay bi écarté nañu ko ne Sonko kay naka mbir yaa ngi ko topp ginnaaw coow lu doxoon ci digganteem ak Adji Sarr bés bi le jour déppee ko plan de survie avocat Ousmane naka di xamle ne daañu amal recours maître Ciré Clédor Ly ne dossier bi naka ba ñu koy ubbi di ko càmbar ca conseil constitutionnel mandataire Ousmane Sonko ab représentant am nag amul kenn ku ko fekkee te loolee nag violation flagrant la ñu ko mën a jàppee ci wàllu loi bi Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye ak Bassirou Diomaye Faye nag ñoom la ñu jàpp ne ñoo nar sauver projet bu Pastef ba tey ci saytu gi nga xam ne rek moom la ñuy amal jëm ci wàllu parrainage yi donte ni nag ndar kepp nañu ko démb ci aljuma ji waaye jeexagul Sud Quotidien na amul benn at admis d'office ci fukki candidat ak ñeent yi nga xam ne rek ñoom la ñu mujjee saytu seen ay parrainage Talla Sylla dafa retiré ab dossier mu Ousmane Sonko dañu koo recalé ay dëmboo ñu daal di koo invalider Bougane Gueye Dany Thierno Alassane Fadul yi ak ñoom ñëpp nag at admis nañu waaye dañoo war a saytuwaat ay doublon yu am ci seen i dossier Ousmane Sonko ñu daal di koy génnee ci course bi yëglekaay bi di Les na juróom benn admis d'office nag ñoo am ci fanweer ak benn yu jàll ci sursis juróom fukk ak ñett yoo xam ne rek bokkatuñ ci élection yi yéenekaay bi ne allié Ousmane Sonko yi nag jamono ji ñaa ngay laam-laamee nag ñàkk fiabilité bi am ci fichier électoral bi ci laas yëglekaay Sonko mu ñu écarté ci élection présidentielle yi nag ci la dellu siwaat jamono joojee Vox Populi nag daal di séq waxtaan ak son excellence France Michel Raynor di ambassadeur bu États-Unis yëglekaay bi dellu siwaat nag ci dànkaafu yi nga xam ne moom ambassadeur bu États-Unis bi nag mu ngi koy amal jëmale ko ci ay junniy sénégalais yoo xam ne rek jamono ji nag jàpp nañu leen te frontière américain yi ambassadeur bi nag ma ngay xam ne daal ne dinañ leen refoulé waat ñu dellu siwaat fii ci réew Sénégal képp koo xam ne yaa ngay dund biir États-Unis ci wàllu immigration te amoo këyit amoo visa dinañ la delloowaat ci sab ci marché yi nag dem xool nemmeeku ci wàllum ceeb non parfumé bi ñàkkum gaz bi ñuy jooytoo askan wi boobaak léegi rawatina nag njëg yu cher yi ñu nemmeeku ci marché bi loolee lépp ak leeral yi nga xam ne nag waa service régional du commerce de Dakar daat nañ ko ci indi yër leen bi la yëglekaay l'observateur enquête tey jii nag daa xëy daal di dellu siwaat ci li mu dippee scandale di xew ci dëj yi nag fii ci réew Sénégal yéenekaay bi jàpp na sénégalais yi nag jamono ji dañuy dérailler ci dëj yooyee rawatina nag comportement yi ñu amee imaam Ahmed Kanté di xam ne ni nag dem nañu ba jamono ji mënatuñoo nag ràññee ab dëj akum ngénte Binta Ba di xamle ci biir yëglekaay bi ne nag benn dëkkandoom fekk na ko muy jooy mu noppiloo ko di ko laaj lan la ñuy préparé ci dëj bi bu weesoo loolu nag yëglekaay bi ma ngay xam ne ne ay sàcc yeneen dañ koy faral di nemmeeku ci dëj bi yër leen bi la yëglekaay tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale réew mi sport dellu siwaat ci football local bi nag mu ne amul nag trêve ci jamonoy kaan bi record yëglekaay daal di dellu siwaat nag ci jongante bi nga xam ne war naa am te gaynde yi nag dinañ jàkkaarloog waa Niger ngir mën a rassurer nag